ñu ngi am mbégte contente bu baax di nekk ci waajtaayu gàmmu Medina Baye édition 2024 waaye ku wax gàmmu sa xel dina daj Mawlana Cheikh al Islam Xaaji Ibrahima Niass mi nga xamante ni si weer yu jubluwaan da daan ndokkeel boppam daan wax hani an li Ibrahima laha hilaluhu hilaalum bada li naazirina jamaluhu ginnaaw buñ ko ndokkalee nag dañuy ndokkeel al xalifa Mawlana Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahima Niass waaye tamit xel yi dana daj ki nga xamante ni mooy borom guddi gi muy Cheikh Mouhamadul Amin Ibrahima Niass mi nga xamante mooy taxawee li nga xamante ni mooy gàmmu Medina baay waaye nag eh, jamono ji nag eh, ñu ngi nekk ak ki nga xamante ni moo nekk Cheikh Mouhamadou Mouhamadou Ibrahima Niass nekk mudirul mahad alxaaji Abdoulahi Niass bi nga xam fële ci saam nga xamante ni école boobu bàyyi ci boppam wax na ne ci la jàngee ndax école maam alxaaji Abdoulahi Niass la ñu ngi am mbégte ak kontaan bu baax ñëw fekk ko fii bu ñu ndokkalee ñooñu nag mooy ne ndokkal ne ñëpp ñu amal benn waxtaan boo xamante ni ñu ngi koy amal ak suñ papa Cheikh Mouhamadou Mouhamadou Ibrahima Niass fii ci këru Baye ci lew nañu seen ci waajtaay li nga xamante ni moo di gàmmu Medina Baye édition 2024 Oustaz ñu ngi lay nuyu di la ziare di la wax dalal ak jàmm ci organes yi nga xamante ni moo nekk média de la Hadara ñu gën koo xam ci CMF. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. di sant yàlla lool di leen tatagal fii ci saal bi nga xam ne mooy saalu Baye Niass radiyallahu anhu fii ngeen toog nii mooy saalu Baye bi nga xam ne néegam a ngi nii. fii mooy néeg baayam waaye fii mooy salle bi nga xam ne fi la daan recevoir gan yi fii la daan toog moom ci boppam waaw kon tey jii nii loolu loolu beneen beneen mbir la ñu koy sante yàlla euh, di leen delloo njukkal yi tamit Média de Fayda di leen tiitaroo di leen bëggee di wax ne dëgg-dëgg nag jot na pour nit ñëpp xàmmee xam ne Média de Fayda dafa war a nekk lu lu lu obligation la nekkatul sax kii waaye obligation la parce que tamit àddina bi toll na foo xam ne ci média ñi nga xam ne ñoo yore média yu mag yi ak képp ku yore say say mbir buy tasaare xibaar ni ko bëggee nga koy nga koy organiser ak na ko xamee te pays bi nag kon dafa soxla média boo xam ne ñi ci nekk li pays bi di wax dañ koo mos xam ko jàng ko dund ko ba pare bokk ci xam xàmmee ko bu ko defee ñu xam li ñu war a wane lan la ak li ko jar lan la ak li ko jarut lan la su fekkee ne dégg ngeen li ma bëgg a wax bu baax a baax mbir ki ko xam dëgg-dëgg dund ko mos ko jàng ko muy ba pare muy muy muy muy muy bakkenam kooku moo ko mën a moo ko mën a sàmm moo ko mën a tasaale mm. parce que keneen bu ñëwee mën na jàpp leneen loo xam ne nii duut mooy quintessence bi mu foog ne loolu moo am solo mm. wala mu mu mu mu am loo xam ne intérêt nekkul ci génnee ko du ko génne hmm. kon nag doomi pays bi doomi xadara bi ñi jàng am xam-xam tarbiyu xam yàlla dégg nga yaru ci yaru pays bi ñooñu dafa jaadu ñu am média boo xam ne bokkut ak généralité yi ak politique ak nangam waaye li aju ci fayda bi moom spécialement doomam yi ñoo ko xam ñoom ñoo war a ñoo xam matière bi ñoo xam nuñ koy nuñ koy jàllalee ak naka lan lañ ci war a jàllale ak objectif bi ñu am ci jàllale ko lan la. kon ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax ci loolu. fan yii nag ñu ngi nekk ci waajtaayu gàmmu Medina Baye ñu bëggoon rek euh, ku ñu defal benn waxtaan bu gàtt jëmale ko ci Mawlana Cheikh al Islam Hadj Ibrahima Niass ak li nga xamante ne mooy gàmmu bi si fa am waaye tamit bëgg nañ nga waxtaan ñu tuuti ci maaxat bi nga xamante ni yow la yàlla teg ci bopp wi euh, loo ñu ci mën a résumé loolu moom la ñu mujjee waaye waxtaan bu njëkk yu daal ñu waxtaan ci Baye ak li nga xamante ni mooy gàmmu. waaw waxtaan wi moom comme waxtaanu jamono moom ni ngeen ko xamee dafa laaj mu bañ a gudd lool. Mm-hmm. Euh, dama la koy tënkal rek. Mm-hmm. ne dafa am loo xam ne moom xaj na dafa mel ni léegi euh, maanaam benn garabu pharmacie nañ jël par exemple aspirine ci yi nga xam ne moo gën a moom moo yàgg siiw. Mm-hmm. jamono bi muy toll ci laboratoire ak bi muy toll ci ñi di ko expérimenter di defar ak di ko jàngat dégg nga. ba ba muy àgg ci ñu dem ba nangu ne lii norme bi nii la ba ba ñuy àgg ci euh, maanaam euh, laboratoire yi jël ko di ko defar di ko tasaaree pour nit ñëpp di ko jot ba nga xam ne fi de soxlaatul di laaj te composition bi lan la parce que àddina bi yëpp xam nañ ko laajatul laboratoire bi ko defar ñëpp xam nañ ko lim laaj rek mooy soxla nga ko demal ci pharmacie jënd ko nga naan wala soxla woo ko nga bàyyi ko mm-hmm. gàmm fi mu ne foofu foofu la foofu la ko bàyyi yóbbu budon doon la defar nako ba nga xamne dem ci pharmacie rek jënd la soxla goko wala soxla ko lu lolu moy lan moy baye dafa ne gàmm mom fim ko tek fu gàtt la yàlla dafa wax ci alquran kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu huwa xayrum mimma yajmaun yow waxal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nit ñi ne len nañi bëggee ngëneelal yàlla nañi bëggee yërmande yàlla te nga wax leen ne lépp lu ñu am ci àddina ak alaaxira suñ ko boolantee nu mënti toll du tolloog bégee ngërmande mànde yàlla du tolloog bégee ngëneelu yàlla mm-hmm. loolu moom alxuraan ko wax mu leer kul bi zalik fale faraxu mm-hmm. nañ ko bégee mu des nag bégee bi nan la mm-hmm. su la neexee nga ne ci xol bi la su la neexee nga ne Euh, nit mën na koo defal manifestation su leexee nit mën naa fàttaliku yonent bi ba géntu ko sallallahu alayhi wasallam mën naa mën na ñëw tag yonent bi mu jooy yooyu yëpp bëggee la mm. waaye comme bëgg am na ci te ci làmmiñ lañ ko wax rek mooy ne làmmiñ tamit am na ci cër mm. fekk li ma bëgg a kon làmmiñ tamit am na ci cër mm. pour pour pour pour génnee mbégte googu xam ne moom la war a bëggee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu des beneen question mooy yàlla d'accord nañ ne wax na ne nañ bëggee yërmande yàlla nañ bëggee ngëneelal yàlla waaye lan mooy yërmande yàlla ak lan mooy ngëneelal yàlla mm-hmm. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo waxal boppam ne ana rahmatul muhda mm-hmm. man maay yërmande yàlla ji nga xam ne yàlla moo leen ko jox kado mm-hmm. kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo wax ne moom mooy yërmande yàlla yàlla wax ko ci alquran ne ko wa kaana fadlullaahi alayka aziman yow ngëneel yàlla ci yow dafa kawe te dafa màgg ba yàlla di ko di ko wax lu yàlla di wax azim xam nga yàllaay wax. Mm-hmm. lu am asamatu ci yàlla bokkut ak lu lu am asamatu ci nit ñi. Mm-hmm. Euh, yow sax boo ne woon azim. lu rëy la. Mm-hmm. waxatuma laaj nag bu ko yàlla waxee ci boppam yàlla nag mu ne ko yow yërmande yàlla ci sa kaw dafa rëy lool. kon mën nañoo jàpp ne moom it mooy jëmmi ngëneelal yàlla su yàlla waxee ne nañ bëggee ngëneelal yàlla. nañ bëggee yërmande yàlla moom mu ne man maa yërmande yàlla kon yàlla daf ñoo wax ne nañ bëggee yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee naa nag su fekkee ne bëggee am na bët am na ci wàll nopp am na ci wàll xol am na ci wàll waaye làmmiñ tamit am na ci wàll waaye cër yi tamit am nañ ci wàll mm. kon loolu mooy mooy mooy loolu bàyyi nag ne forme bi nga xam ne moom la ñuy def mooy ñun dañuy bëggee yonent bi at mi yëpp mm. ak suñ dund bi yëpp mm. fuñ àgg moom moo ñu fa àggale waaye nag bés bii ñuy ñuy tànn muy bésu juddoom di ko def mu ne maa ngi ko jëlee ci alquran wa kullan naqussu alayka min anba'i rusuli maa nusabbitu bihi fu'aadak yàlla moo wax yonent bi sallallahu alayhi ne ko danaa la nettali xibaaru yonent yi la jiitu woon te yaa leen gën yaa gën a jege yàlla ci yow la ñuy tëbboo waaye terewut comme jiitu nañ la fi ci zaahir da nga soxla xam seen jaar-jaar pour mu dëgëral sa gëm yàlla xam nga wax bi dafa garaaw maa nu sëbbitu bii fu àddak lu ñuy dëgëralee sa xol ci gëm yàlla bàyyi nag mu ne leer na di su fekkee ne yonent bi sallallahu alayhi dafa soxla xibaar yi ñi ko jiitu woon te moo leen gën a mat mm-hmm. moo leen gën a xam yàlla moo leen gën a yàlla moom moo leen di tëbb waaye terewul jiitu guñ ko jiitu zahir tax na mu war a jàng seen taarix war koo jëriñoo ba pare mu dëgëral gëm yàllaam xam nga loolu moo ci garaaw mm-hmm. fekkoon na sax da koy jëriñoo ci culture wala jëriñoo ko ci sa doxalin waaye maanu sëbbitu bii fu àddak dafay dëgëral sa xol ci gëm yàlla mm-hmm. su fekkee dañoo muñoon ñu wan la misaal ci muñ su fekkoon ne dañ laa dañ leen a tooñoon ñu wan la misaal ci tooñ su fekkoon ne su fekkoon ne su fekkoon ne yooyu yëpp nga jàng ko yonent bi sallallahu alayhi wa bu fekkee soxla na loolu kon ñun amul wenente leen soxla nañ jaar-jaar yonent bi seet fa mu ñëwee woon seet ña ko tooñoon nu mu def ak ñoom seet ba muy lu ko lislaam jaraloon ak euh, euh, taxawaay bi mu ci taxaw ak lañ ko ci def ci coono ak liñ def jabootam lépp mu muñ ko ngir ngir ngir ngir ngir ngir kii waaye boo jëlutoon lu may rek ba mu demee ba bañ dàqee ko di ko sànni xeer ba ba ba ba mu nàcc ba malaaka mi ne ko joxeel ndigal ma boolante ñaari doj yi mm-hmm. malaaka mi ne ko joxeel ndigal ma ubbi géej gi suuxal leen lu mu ca teg law ma ihdi xaw fi innahum laa laa laa yaalamun mm-hmm. yow yàlla déedéet yàlla maa ngi ñaan sax maa ngi leen di jéggalul waaye maa ngi leen di ñaanal sax nga jubal leen dañoo jub dañoo dañoo xamul rek mm-hmm. misaal boobu rek ak leçon boobu rek ñu jàngale ko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam jar na nit ñi xam misaal boobu dañ koo soxla ci jamono parce que nit ñi dañoo mën a tooñ nit ñi dañoo mën a saboté nit ñi dañoo ñaaw làmmiñ nit ñi dañoo yaradiku nit ñi dañoo dañoo dañoo àddina daf leen a jaral lu nekk daraja daf leen a jaral lu nekk nga bëgg a liggéeyal diine ci jamono boobu boo xamut fi yonent bi jaaroon ci muñ ak stratégie ak dal ak jéggal nit ñi ak jëflanteeg yàlla mën naa am boo amee pouvoir danga nga dal ci kaw nit ñi boo amul pouvoir nit ñi danañ dal ci kaw faagaagal kon loolu mooy mooy moo moo waral ñi gàmm te nag bu loolu yëpp paasee comme dama koy gàttal mbir dama ko faral di wax euh, kii euh, Babacar ne suñ tollee ci buntu nawet mm-hmm. wala ci buntu année scolaire mm-hmm. maa la daq jàng maa la gën jiw maa la gën jarti maa la gën ay surga mën nañ koo wax ci commencement yu nawet bi mm. mais suñ demee ba nawet bi génnee gerte gi mu war a génnee génnee dugub ji génnee mboq mi génnee euh, lépp génnee xaal bi génnee lépp lépp lépp lépp ba siise euh, siise sawar lool xam ne fi mu ne nii moom macha allah affaire bi neex na jamono boobu noonu nañ bàyyi résultat yi mu wax mm-hmm. école bi moo dàq jàng bii école bi su ma leçon yi maa la gën a mokkal su su bag yi génnee mention yi génn lépp génn bu boobaa nañ bàyyi résultat yi mu wax mm-hmm. amul benn bes bo xamne ne Baye masna gamu ba fajar té mom amul conviction ci bopam né lim wax ni mën ta ñak ju résultat. Mhm. mu ne ana ko bëgg tu ndax amna ko bëgg tu mhm. ndax amna ko bëgg tu bokku tak ana ñi bëggona tu mhm. ndax amna ko bëgg tu moy né dafa dafa dafa melni oustad bu jangal leçon ba pare. waye oolu bopam ne nim jangalé leçon bi na képp ku am xel wala nga am tawfiq dang ko dégg. mu né ndax yeen amna ci yeen ku dégg leçon bi. Mm-hmm. am ku jug taxaw ne ko man dégg naa ko mu mu defal la mu laaj la démonstration nga def ko. Mm-hmm. loolu la bàyyi doon def buñ gàmmoo ba ngoon ba ci bëj ba fajar gi mu ne ana kuy tuub ndax am na ko bëgg a tuub ñu ne ko am na ñu bëgg tuub amul benn gàmm boo xam ne bu gàmmoo ba fajar du am ñoo xam ne ay leneen lañ woon. Mm-hmm. nekku ci lislaam ñu mujj tuub nekk nekk lislaam ba am na benn gàmm boo xam ne sax bàyyi dafay tuubal ñuy changer tur yi di changer tur yi mu jël temps bu gudd gudd gudd gudd ba mujj gi sax dafa naan ku ñu wax tur boo xam ne tur lislaam la mu ne kooku jarul soppi mhm. bi ñu demee ba ca kanam ñu ne ko am na ñuy jël tariqa mu ne déedéet bu ñi fekkee ne ñi jël tariqa mooy ñi tuub léegi bu buñ jëlagum tariqa mhm. nañ yem ci lislaam bi jàng ko ba xam ko ba pratiquer ko ba ci kanam bu boobaa ñu soog a seet ndax soxla nañ soxla nañ tariqa wala soxla wuñu mhm. xam nga loolu Sëriñ Mbay loolu dafa garaaw di. stratégie waaw dafay wane ne moom li muy def xam na ko te yàkkamtiwut te yàkkamtiwut ay taalibe. Mm. tey tamit lislaam a ko tax a te mm. dafay wane ni tamit tariqa bi du dara lu may lislaam. Mm-hmm. waaye étape la kon bul tëb étape. Mm-hmm. tariqa bi du leneen lu dul lislaam lislaam la waaye nag ay étape la. Mm-hmm. mënoo tëb tëb rek dal quatrième étage te jaaroo ci premier étage. loolu yëpp bàyyi def ko démonstration ci jàmm kon léegi werante bi ak nekk fi di argumenté naan gàmmu baax naag baaxul jaratu ko. romb nañ waaw ñi gëmu gàmmu duñ ko gëm mukk hmm. maa ngi dégg oustaz muy wax ne ca Arabie Saoudite am na ñu bëri ñoo xam ne ci jamono bàyyi parce que benn waaye daf ko laaj na ko bàyyi nu muy def ba nekkoon tijaan nekkoon tas mu tasawis ba pare di ànd ak ñoo xam ne dañuy contre tariqa nu mu daan liggéey ak ñoom ba mën a liggéey ak ñoom hmm. xam nga leçon boobu itamit Babacar dañ ko war a jël hmm. bàyyi daf doon dem ci rabitul al islam Euh, benn baas moo gënoon moom la ñu wax ne moo gënoon a bañ euh, affaire u tariqa ak nangam nangam am nangam nangam te benn baas mooy dalal mooy mooy dalal bàyyi bu ñëwee mhm. ci rabitatul alam islami ah bàyyi daf ko war ne ko gëmoo tariqa nañ bàyyi affaire tariqa ñu wax ci li nga xam ne mën nañ cee déggoo mhm. ñu dem parce que mhm. doo mënoo maa génnee ci tariqa te man tamit parewu ma la ciy dugal kon nañ bàyyi wax jooju daf ñu indil problème te l'islam am na lum ñu mën a jëriñoo parce que am na loo xam am na lu ma xam mën nañoo jëriñu ci affaire boobu mu dem ba forcé ko benn baas ba nangu ñu stage ngi nettali ne am na buur boo xam ne boobu moo nekk waliyu ahdi faysal la war a doon booba nekk gut ñëw ci at gi mu am ku mu yónnee bàyyi ne ko soo jox ko enveloppe bu mag def ci xaalis bu bari maanaam daal addiyee ju bari mm. ne ko soo demee na nga wax bàyyi ne ko dama ñaanal mm. bàyyi ne ko demal nga ne ko xanaa dafa fàtte ne man benn sëriñ laa ci sëriñi tari ci sëriñi tijaan yi mm. mu ne waa ji delluwaatal nga ne bàyyi na nekk lu lu ko neex mais man na ma ñaanal rek intéressé wu ma doon may man na ma ñaan rek xam nga loolu loolu tamit nga déggee ci ne bàyyi wane woon na ne man li ma doon doon naa ko. ba pare te amuma complexe. xamoo ne li ko waral am na lu bëri li ko waral xam nga lan la. ki nga xam ne tijaan la wala mu tasawif la. waaye jàng na dara ci tasawuf wala nangam mais xóotuwut ci sharia xam-xamam tamit ci ci ci sharia wala ci lislaam wala ci kii yaatuwut yaatu googu noonu. dafay tënku ci ci lim nekk ba ku nekk ku nekkul lii mënta jëflante ak yow. Mm-hmm. keneen koo xam tamit sa xam-xam daf laa nax ba nga jàpp ne yow yow yow kenn am xam-xam da ngay foog ne yi tamit euh, mu tasawu fii nii parce que dañoo am taalibe seen taalibe dañ la déggal daf lay déranger parce que yooyu tamit doo kii waaye affaire bi kii waaye oustaz mu ne dafa am leneen lu ci gën a garaaw duut ne ñëpp a bëggu bañ tariqa. Mm-hmm. dafa am ñoo xam ne dañoo bañ tariqa parce que kii la waaye daf cee bëri ñoo xam ne ci saaga tariqa ci la ñuy fay ko. Mm-hmm. mu joxe ci benn misaal bu dooy waar mu ne da ngay imaginer ku jógee Nigéria ñëw ci ci rabita bi de jëm congrès ñëw yow yaa ngi romb ay nit ñoo xam ne ngi jaay kurus ci buntu ci ci boori Kaaba gi ak boori Madinatu Munawwara boo demee am na ñuy jaay kurus nga romb leen dem ci benn borom xam-xam nga xam maanaam ci ñooñu nga xam ne ñoo yore. Mm. doole ji ci ci ci ci kii parce que yore nañ xaalis. Mm. nga indil ko ay kurus ne ko kurus yi maa ko nangoo ci tijaan yi nga xam ne ñoo nekk Nigéria di affaire affaire caaxaan yooyu maa nangu seen kurus indil la ko. mu mu gërëm la di la jox di la di la jox ay xaalis di la jox nangam te yow te fàtte nga ne yow am na ñuy jaay kurus fii yaa ngi leen romb moom it mu dof ba jàpp ne maanaam ay nangu ay kurus kon mu nga mu ne nga déggee ci ne am na ñoo xam ne ci loolu lañ doon amee hmm. xaalis la xaalis moo ci nekk bu bëri boo xam ne moom la ñuy jox nit ñu pour ñu saaga sëriñ si am na ñoo xam ne loolu ci la ñuy traité boo demee même ci ñi koy def ci réseaux sociaux yi amul ci kenn ku koy def gratuitement amul koo xam li muy def tamit daf ko gëm maanaam dafa dem ba jàpp ne sëriñ si dañoo bon rek nangam ak nangam walla wala gëstoom moo ci àgg wala déedéet bëriwu ci un pour cent moo ko ñi ci ëpp loolu dañ ciy fayeku mm. waaw dañ ciy fayeku moo tax loolu la parce que boo demee site yi koy def yëpp maanaam seen site yi xam nañ ni muy demee. Mm-hmm. loolu sax dama ci laal seen benn appel wax ko taalibe yi wax ko nit ñëpp am surtout ñi nga xam ne intellectuel lañ. Mm-hmm. nañ bàyyi nit di foyee seen xel yi ba pare di jël seen xaalis yi ci seen poos yi. Mm-hmm. maanaam nit du créer site di saaga xalifa général. Tijaan di saaga général di saaga xalifa Madina di saaga xalifa général Murid di saaga di saaga di saaga ba pare site boobu ñun taalibe yi ñoo koy déglu. non seulement mu yàq suñu xol ba pare te ñun nombre de vie yi nga xam ne moom lañ moom moom lañ koy jox moom ci lay ci lay ci lay amee xaalis pour di saaga nit ñi kon loolu yi tamit lu tax euh, suñ njàng yi du àgg ci loolu ñu xam ko site boo xamee dafay saaga sëriñ première première euh, acte mooy mooy ñun ñëpp ñu d'accord ne képp kuy taalibaay bu ko déglu bu wa ignoré ko buñ ko ignoré mu gis ne vie am yaa ngi wàññeeku bu boobaa dana dana changé ni muy def kon loolu mooy loolu loolu mooy gàmm kon jaratul werante jaratul dara li ñu war a wax kay mooy fàttali nit ñi ne leen gàmmoo ngi nii di ñëw bàyyi ci boppam waxoon na ne moom comme bugg yonent bi ci la amee lu nekk hmm. kon ñun tamit nañ fàttaliku ne lépp luñ bugg ci bàyyi rek ñu ngi koy amee ci dimbaleku ci bugg yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu benn waay foofu laay taxaw foofu dafa ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko damaa bugg nga garantil ma aljana hmm. mu ne ko tee ngaa ut leneen loo wax garanti aljana dafa rëy gi mu ne ko man aljanna laa bëgg mu ne ko tee ngaa wax leen mu ne ko sëñ bi man aljanna laa bëgg garanti ma mu ne ko d'accord naa waaye da ma ci dimbale de. Mm. mun ne ko ci naka lay naka laa la ciy dimbalee mu ne ko ay nii bi kasar ci sujudi mm. ni may dimbalee mooy yow it ngay góorlu di julli di sujjoot lu bari soo sujjootee lu bari rek man mën naa sukkandiku ci loolu ki la aljanna. Mm. li tax ma indi ko hadis boobu. mooy pour ñu xamee ci ne ñun lépp luñ bugg ci bàyyi. bàyyi am na garantie bi waaye buñ buggee dimbalee bàyyi ci garantie bi gaaw. mooy ñu jaar ci yoon wi nga xam ne moom la jaaroon ci bëgg yonent bi ba moom mu nangu ne jàppale nañ ko ci mhm. parce que lépp lu ñu wane ci bëgg yonent bi rek dafay sagal bàyyi ci kanam yonent bi sallallahu alayhi wasallam parce que bàyyi moom bëgg na yonent bi ba pare am am na ko mhm. waaye nag ñaata nit laa fexe ba jëlee leen ci sàggante indi leen ci bëgg yonent bi loolu yi tamit dafay dafay dafay nekk sagu bàyyi mhm. hmm, benn waaye daf ma nekk lu am solo mu ne ma sëñ Fallou dafa am bu biñ ko indilee Mercedes fii boobu Mercedes bëriwut ci Sénégal ñi ko fi am bëriwul Ndiouga Kébé moo ko fi am moo ko moo ko moo ko dafa mel ni sax moom moo ko ko moo ko joxoon addiye wala daal noonu man daal ñu ko fi am bëriwul. Hmm. mu dugg ci Mercedes bi naaj bi tàng na mu seen benn taalibe taalibe bu oyof nii waaye nag xàmmee na ko taalibe la mu ne ko kii de naaj bi tàng na te yàgg na ci kii bi yóbbaale maanaam Serigne Fallou taxaw Mercedes bu mel noonu. ak jëmmi sëñ Fallou ak dara darajaam di yóbbaan yóbbaale benn taalibe bu bu bu oyof noonu dafay dafa dafa rëy ci taalibe bi. Hmm. ah ñu yóbbu ko ba àgg fi mu jëm mu taxaw wàcc. rek mu xaal jàpp ko mu ne sëriñ bi ah aljanna yi tamit de àllaaxira tamit de nii rek la de waaw boo ñu fa fekkee rek yóbbaale mu ne ko waaw baax na waaye naa la fekk ci yoon wi de. Hmm. waaw waaw. Hmm. naa la fekk ci yoon kon ñu ni tamit lépp luñ ñu bàyyi fekk ci yoon wi. loolu mooy wax ci mbiram école bi tamit yow yaa ko école la bo xamné boy def historique bi da ngay wax ne rek yonent bi sallallahu alayhi wasallam moy awwalu muallim mooy ki nga xam ne mooy mooy mooy mooy mutaallim wa awwalu muallim parce que moo mooy élève bi jàng ci diine daara bi tamit ci diine parce que yàlla daf ko wax ne ko bim koy wacce alquran iqra la wacce am na ñu bañ jàmm ñoo xam ne euh, maanaam pour weddi ne iqra njëkkut a wàcc man sax bu fekkee ne gëstu la rek ak gëstu moom dafay avancé heure bu nekk war na bees. waaye acharnement bi ci am ku ko wax jàngoo amoo xam-xam loolu amut. loolu laa xamut loolu pour lan la te nit ñi nag façon boobu la ñuy wax léegi même même ñuy waxtaan ci bàyyi sax ñu défendre bàyyi ñoxor njaay rek ñu naan ñi bañ bàyyi ñooñu nangam danañ xalaku danañ nangam bàyyi ñu ko bañ waaw doo wax ak ñi bëgg bàyyi ba pare balaa ngay wax ñi bañ bàyyi ñi bañ bàyyi sax looy wax ak ñoom luy sayoon ci ñoom. Mm. <laughs> la déglu. Mm. jarut wax. kon ah, jiwoo jàng moo ci jëkk wàcc hmm. yonent bi ci boppam daj ci jàng loo xam ne jàng nga ci ci ci ci gàmmu ñu ne njett nañ ko njett hmm. kuttu ko ba nga xam ne nee na euh, am na benn moment boo xam ne kuttu na ma ba nokkeetu ma hmm. bu continuer woon rek sama rox gi dem def na ko ko ñett yoon na ko jàngal mu ne ko du ma jàng kon mën nañ cee xamee ne non seulement yonent bi mooy euh, euh, taalibe bi njëkk a jàng alquran njëkk a jàng xam-xam waaye nag daj na ci jàng xam-xam loo xam ne ëllëg bu ñu ci ne daara yi dañoo sonal xale yeeg xale yi dañuy tilim ak dañuy nangam parce que li yonent bi daj dem ba nga xam ne ni yaa ngi sa bakkan bi xaw na cee dem mm-hmm. loolu ñun ñun ñëpp àgguñ ci mm-hmm. te yonent bi daj na ko ci jàng te soxla loolu mm-hmm. mais daf ñu ci doon loolu amee mu daal di nekk jëkkale jàngalekat yàlla du wax ko wëtlu yu bëri jàngala jàngalal nit ñi jàngalal nit ñi ba àgg ci euh, dugg ci xóot xóot ak faram fàcce ak nangam ak nangam ak nangam jangale histoire jangale nangam nang nangam mu taxaw di jangale ne mom sax daf ne innama boistu mualliman yalla kat daf ma yoni uniquement pour ma nek ab kat man ab enseignant jangale kat la loolu lolou moy sama sama sama risala moy sama mission sahaba yi don ko ci mom sallallahu alaihi wasallam sallam anni walau ayata ni ni ni jangale di tassare ba ad ba ad dëmbi di dox di dox di dox ba kam-kam taxaw ñu bind ñu bind de nga euh sihah yi ñëw nangam hmm? Hmm. ak nagam lolu lolu mo indi kam kam kam kam di dox di dox di dox hmm. ñi diko don ba aksi ci Cheikh Ahmad Tidiane momit mu jox kam kam ité jangalé de nga def lu nekk ci kam kam ci tasaare ko xam nga man leg-leg amna ben lettre bo xamné Euh, majmahu euh, rasaili Cheikh Tidiane radiallahu anhu maanaam ay leetaram yoo xam ne dañ koo dajale def ko móolu ko leetar yooyu rek soo koy soo koy jàng boo demee ci côté baatin da ngay foog ne Cheikh Tidiane baatin rek ko tax a jóg ay tariqa ak nangam. Mm-hmm. mais boo demee ci côté zahir ni muy wanee ne nit ki noonu la war a respecté sharia mm-hmm. boo demee buy wax julli ne maanaam boo taxawut taxaw bi nga war a taxaw ba dal rukkoo ba dal siggi ba dal boo ko hmm. deful sa julli gi soo paree dañ la koy delloo hmm. nga xam ne kooku kooku ku respecté sharia hmm. boo demee ci muamalaat jëflante nii surtout ci wàllu xaalis ak banque yi nim ci wax ak nim ko nim nim ci nim ci moytandikuloo nit ñi lekk loo moomut da nga xam ne kon kii li muy def lu mu xam la duut rek ay affaire bu baatin ak nangam nangam mais baatin munul am te zahir amut dafa jàng am xam-xam baatin bi dafa ñëw waaye xam-xam dafa am loolu nag ci la affaire bi di dox ba yàlla def bàyyi ba kii maamalaaji ñëw moom i tamit nekk xalifa Cheikh Tidiane nekk donoom moom i tamit il kon kon dafay donnu xam-xam hmm. mu taxaw def ci xam-xam ci jàngale loo xam ne kenn mësu ko gis doy na ci xam ñu ne la yow yaa jàngal Baye Niass mu ne man amul kenn ku ma mas a tëral benn darse ku may sama koy suma baay hmm. darse bi ma mujj a defal bi ma ko defee keneen tegu ci beneen te hmm. keneen mosuma jàngal doy na ñu ne la kooku moo jàngal Baye xalifa hmm. doy na kooku ñu ne la moo jàngal El Hadj Mouhamed Zeynab moo jàngal El Hadj Babacar moo jàngal El Hadj Babou Niang. Hmm. ñëpp mu jàngal leen. loolu dafay wane ne taxaw na ci xam-xam waaye dafay wane doonoom ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam parce que barke njàngale yonent bi sallallahu alayhi wasallam feeñ na. Hmm. ci ñim jàngal. ci zahir ak ci baati. bàyyi nag mu ne Maam Alaaji bi mu fi génnee àddina damaa laaj sama bopp benn question. waaw ñii nga xam ne ñoo daan ñëw ci maam alaaji guddi ak bëccëg suba ak ngoon mu di leen di jàngal di leen feccil masala yi di leen taxaw ci xam-xam léegi dem na léegi kan bu ñëwee ci kan la ñuy dem mu ne ah war nañoo dem ci ñëpp de waaye man waruma des gannaaw man itamit war naa préparer ba ku ñëw ci man man man itamit ma man laa jox li sama li ma li sama baay daan jox ci xam mu ne kon man waruma des gannaaw ñëpp ubbi daara waaye man it ma ubbi daara kon daara yooyu noonu yëpp daara Baye Khalifa daara alaji ma Abdou Niang daara euh, ala Ahmed Boucar daara euh, alaji Babacar daara alaji Mouhamadou Zeynabou yëpp ay ay ay ay kii la rek benn école la am ay classe ci biir mm. maam alaaji mooy école bu mag bi kalaas yi moo mel noonu Baye nag mu ne ci loolu laa dem di jàngale di jàngale ba benn jëmmi jamono nag man ma gis ne maanaam nit dafa war dëppook jamonoom mm-hmm. daara ji la woon toog di jàngale waaye fi mu ne jamono dañoo toll ci jamono ju laaj diplôme. jamono ji laaj ñu dugal ci yeneen i xam-xam ak moderniser njàng mi pour nit ñi ñiy jàng mën a jëriñoo seen njàng bi. Mm. état mën koo reconnaître addina bi mën koo reconnaître ñu mën koo jëriñoo ci wàllu àddina ni ñu ko mën a jëriñoo ci wàllu diine mu ne loolu moo tax ma defar école man defuma lu may moderniser ko. Mm. dëppale ko ak jamono waaye man ci laa jàngee. Mm. bàyyi xalifa ci la jàngee sama mag yëpp lañ jàngee kon école boobu. mooy mooy mooy mooy mahat bi mm. imaam Assane wax na ma ne ma mu ne ma bàyyi ci mujj dundam bokk na ci lim ko mujj wax mooy ne ko doom su ma buraatoon ba dellu senegal ñaar yëf rek laay itteewoo. Mm. benn danaa firi alquran beneen firi bu boo boo xam ne danaa ci dugal dégg-dégg yi ma am ci xew-xewi jamono yi. Mm. waaye danaa toppatoo sama maat bi ba def ko université. ñaar yooyu mooy bokk na ci lim mujj wax ak moom wan ko ne ko loolu mooy ay bibitam école boobu nag tey jii nii Cheikh Mouhamed Nazir la ko bàyyi jox. mu def ci addinaam yëpp amul benn soxla amul benn itte fen def ci lu kenn mas wax loolu pour wax ko benn émission sax mënu koo jeexal mm. kon mënuñ ko wax tey mm-hmm. sëriñ Mahi ñëw nekk fa ñaar fukki at ak ñaar booba man ak moom ñoo fa nekk mm. maa ngi nekk ci wetam ak ñoom Oustaz Ibrahima Ndiaye ak ñeneen taxawu ko mu liggéey fa liggéey bu mucc ayib boo xam ne moom tamit yóbbu xam-xam ak saqaafa ak buggu xam-xam def ko ci xale yi foo xam ne xale yi pour ñu ñemee wax ci mbooloo ñemee bind ñemee def ay discours lo xamné momi tamit ñëpp gis nañ ko bu yàlla défé nak mu nekk khalifa mu ne mëna nag ma dénk la école ma ñëw nekk fa di nat nati suma premier objectif mo doonon bi ñëwé fekk na ci walu maanaa ci walu saqafa ak walu niveau njàng wax deug yàlla école bi avancé na waye nak ci walu tabax tabax yi yag na yag go xamné de amna lu ko jot ba nga xamne ne ni tabax yi ngi waja daanu yi bo toge toogee lok jant bi bu tawé ken du xam foy jaar ba légui école bi da fay da ne indone fimni ne jamono ji may wax ak yéen mën ta dugg ci école bi ndax ndox ngi jaar fu nek lolu nak ñu lancé won appel boobu. wax deug yalla am nañu ñu serigne mo ñëk tabax classe yo xamne bâtiment bo xamne bu mucc ayib la bu rafet bu am solo bo xamne bâtiment bi lum taw taw yow di nga mëna dugg fofu te bo duggé da fay ni gisoo ndox. Hmm. fi ngay jaar ba dugg fa mooy problème waaye loolu moom mu ngi taxaw. gannaaw gi tamit am na ñeneen ñëw boo boo duggee léegi da nga gis ne Nazirou Seck mi ngi tabax foofu bâtiment boo xam ne juróom benn classe la yoo xam ne ak nangam yoo xam ne tamit tabax bu rafet la bu mucc ayib boo xam ne nii am na mm. waaye lu jiitu fekkoon na euh, fond Medina Baye. moom it mm. tamit tabax fa benn benn neuf classes yoo xam ne ak nangam boo xam ne moom tamit vraiment bu moderne la bu rafet la. Mm. lu jiitu loolu tamit Cheikh Mahi Cissé euh, ak imam mos nañoo. tabax nañ fa ñaari bâtiment yoo xam ne moom tamit ku nekk benn boo xam ne tamit boobu mu ngi commencé yàgg waaye nag boobu defar bu ndaw rek la laaj hmm. defar bu ndaw rek la laaj parce que tabax bi yàqoo gut dara yàqoo gut xaj na plafond yeeg tàngam ak nangam ak yàgg bi mu yàgg moo tax hmm. euh, xale yi tamit ñi ngi commencé am na ñeneen ñuy def euh, Cheikh Tidiane Wulu Seyid hmm. def na fa euh, ba jaawo ok jaawo yi tamit exactement ñëw na fa moom tamit def fa ñaari euh, ba ñaari kii yoo xam ne juróom benn classe ak ay bureau yoo xam ne moom itamit vraiment boobu moom mooy moom moom mooy moo yore mooy dëpp daj dëpp gi hmm. vraiment dafa rafet na moderne na dëgër na te dafa dafa dafa style bu rafet rafet rafet hmm. loolu yëpp nag ak Cheikh Tidiane Wulu Seyid Hajjul Misri ak euh, Benjeloum moom tamit ñu ngi koy ñaan mu ñëw mottali kalaasa mi parce que pare na équipement bi ñu ci war a def rek moo des. Hmm. Euh, muqaddam boobu gaañu bu yàggu tamit ñu koy wax diis. moom hmm. tamit moom moo tabax kii boobu noonu salle de boobu ci kaw. Hmm. am na ay étudiants yu ñëw wane ne ñoom bugg nañ pour pour équiper ko def fa ay ay ay ay nangam équipement pour ñu kii ko ci loolu lañ toll ci école bi pour xam ne. xam-xam ci ci kër baay. Hmm. xam-xam ci baay ci boppam ak ak ni mu ko jàppee jar na nit ñëpp xam école boobu lan la te waxuñ kenn mu sànni alalam waaye ku nekk na ñëw xoolal sa bopp gis li nga mën a def lan la. Hmm. waaye lu mujj gi nag mooy Abdourahmane Ndaw moom i tamit ñëw na mi ngeen xam mi tabax hmm. zawiye bi mi tabax dispensaire Medina bi hôpital bi ñëpp xam nañ ko ci ci ci ci jub ak tabax fi mu ne nii nag collaboré na ak ak ak ak fond Medina Baye mhm. pour ñu jël en charge nag école bi fexe nag ba mu àgg nag ci niveau bu mujj bi muy àgg fexe ba ndox mi dootu fa taa fexe ba def fa yeneen i jumtukaay yoo xam ne surtout nag euh, batiment boo xam ne dana mun a abriter jàngalekat yi égyptiens yi yi mhm. nga xam dañuy ñëw ñuy am problème fu ñu leen def ñu defal leen leen dëkkuwaay boo xam ne suñ ñëwatee foofu la ñuy nekk duñ soxlaa dem feneen mhm. ñu leen di luweel ak di nangam nangam fi fi ñu luwee ragal ñu ñàkk ko fi mu ne nii dañ koy fay ci vacances yi pour pour bañ ñu ñàkk ko. Mhm. te wax dëgg yàlla amuñ ko. parce que mhm. man maa ci nat nati rek xaalis bi ñu woon école bi jeex na takk fi mu nii man maay góorgóorlu ci sama xaalis di ko di ko fay ngir bañ ñu perte ko parce que soo ko soo ko soo ko bàyyee léegi. Mhm. dañuy ñëw ba agsi ñuy utal ñuy utal fuñ leen fuñ leen fuñ leen def te loolu dafay métti. loolu yëpp ñu ngi koy daj am na xale yi ñu nekk ci école bi daanaka boo ko xoolee bu dee junne élève la. ba juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent yëpp juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent yëpp seeni i bàyyi ay pa ay ay ay ay néew ji doole lañ. ak mhm. ay ay nit ñoo xam ne seen i parents gaañu nañ ak nangam ak nangam amuñ amuñ dara ah, ba pare te dañoo bugg a jàng te bàyyi moo oote ne kaay leen ma jàngal leen. Mhm. ne amul kenn koo xam ne sañ nañ koo dàq ngir ne amul kii loolu nag am na ñu ci sukkandiku. ñoo xam ne nii amuñ waaye am na ñoo xam ne dañoo am ba pare ci sukkandiku te mënuñoo dàq kenn tax na ba xam ne école bi tamit soxla na ndimbal ci côté boobu. Mm. pour ñi fay jàngale ak ñi fay liggéey wax dëgg yàlla ñoomi tamit. taalibi Baye waruñoo nangu ñi nga xam ne ñooy liggéey ci école Baye bi gën a ndóol ci mboolem ñi nga xam ne ñooy liggéey ci yeneen école yi ci àddina bi yëpp. surtout école arabe yi loolu taalibi Baye war nañ ko jombale seen bopp. Mm. te loolu yëpp nag du dara lu may dafa jar nag école bi dem information waye dafa jari tamit talibé baye bi par curiosité ak tamit xam gim xam euh, baye fim tek xam-xam mu départ ñëw ci école bi laccé ñu ne ko lii ak li la mm-hmm. waaw mais ku nekk bëgg tok sa kër kenn ku nekk nga dem ci mom da fay metti bo défé tamit euh, ku nekk euh, da fay da fay metti trop pour ñu def lolu waye talibé bi ñun war nañu def communication war nañu def lu nekk pour ag ci nit ñi waye nit ñi tamit baye xam-xam war nañu leen jaral ñu ñëw ne waaw fii lan lañ fi war a def. waaw ñu ne la parrainel benn élève sax yow amoo xaalis waaye mën ngaa parrainer benn élève fukki soixante mille par par par at nga ne man parrainer naa benn élève pourquoi taalibe bi bàyyi ñoo mën a def loolu. kon loolu mooy li nga xam ne moom moo nekk ci école bi. ñu ñaan ñu tasaare ko. àddina bi yëpp dégg ko. waaye bu ku dégg yi tamit balaa ngay def benn réaction mm. na nga ñëw ba ci école bi wala nga ñëw ci man wala nga ñëw ci ñu nekk ci école bi nga laaj leen ñu expliquer la wan la yoon boo xam ne bu bu transparence la nga xam ne boo ci defee sa xalal alal di nga xam ne loolu mm. bu boobaa yi tamit na ñëpp préparé ne ma dina bàyyi ak ci njiital Abdourahmane pare na pour defar école bi mm. ku ku kum neex nga xaar bañ def appel de fonds waaye kum neex yi tamit ubbi nañ am na ñu commencé joxe seen seen participation déjà bu kenn xeeb dara ku ci am sax dix mille francs boo war a joxe mu jëm ci école bi bu la neexee nga oo Abdourahmane mu wax la foo koy dugal nga dugal ko fa mm. bu ko defee balaa ñuy toog déwén heure bi mm. ñu defar école boo xam ne dëgg-dëgg li ma waxoon sànq bàyyi pour ñu mën koo pour mu mën ñoo dimbale pour ñu mën a gaaw ci suñ jokko jot jottaliku bi muy jottaliku ci ñoom mhm. billaahi bis buñ ko defaralee école boo xam ne bijou la bu rafet boo xam ne ku taxaw fii àddina bi yëpp xam ne école bi rafet na mhm. Cheikh Tidiane bëgg ci bàyyi bëgg ci yonent bi bëgg ci mhm. bés buñ defalee bàyyi lu mel noonu bu boobaa danañ gis ci xéewal loo xam ne mu suñ ko gis xaalis boobu demul ci poosu kenn demul ci euh, jéey baaj kenn demul ci dépense kenn ci école bi lay jëm te wax dëgg yàlla nit ñi war nañoo sëriñ mbuub war na leen a jox exemple war na leen a jox misaal. jaawoo hmm. war na leen a jox misaal. mais ñeneen ñi tamit war na leen a jox misaal parce que kenn ku nekk ba nga defeelee loolu bàyyi ak léegi koo ci laaj du la wax ne dellu na gannaaw. Hmm. waaw kon loolu mooy li nga xam ne moom la am ci te école bi tabax na ay nit yu mën a def retour boobu noonu. waaw xam nga hmm. loolu sax baa baax na Babacar Bachir pour ngeen fàttali ko. parce que appel bi sax mi ngi njëkk jëm ci képp koo xam ne. jaar nga ci école man sax dama yakarne yeen ma média de la fayde bi yeen lañ warona charger lolu loolu. Mm. ngeen ngeen ngeen organiser ko. Mm. en collaboration avec al fayda. Mm. ñu fexé ba recenser ñepp ku ngeen xam def appel ne képp ku bokk ci école bi jaar fi xébuñ lo am xébuñ sa xalaat sa ñaan ngeen def benn groupe bo xam ne yéen koy ba dajale. li ngeen am ñëw indil ko fond bi wala kii na ko ñu ni tamit lii mooy si kii walla ngeen dimbale leen ci communication bi rek mm-hmm. waaw mm-hmm. tasaare ko xamal ko nit ñi mm-hmm. loolu tamit lu am solo la def campagne waaw incha euh, loolu moo nekkoon waxtaan bi ñu ngi jégalu ci guddal gi di am mbégte ak kontante bu baax a baax a baax ñu doon ànd ak euh, suñu papa Cheikh Mouhamad mun xamee naa Ibrahima Niass mi nga xamante ni comme ni mu ko waxee léegi moom moo nekk mudirul mahad Hadj Abdoulaye Niass Euh, gis nañ ñi nga xamante ni expliqué nañu ko ci résultat yi nga xamante ni école bi mu ngi koy am macha allah ndax euh, am na luñ ci fekkee euh, gis nañ daaw ñi nga xamante ni ñoo defoon bac résultat yu am solo yi nga xamante ni am nañ ko Sénégal yëpp di ko waxtaanee. loolu ak ak ren. macha allah ak ren résultat ñu am ci entrée en sixième yi. entrée yi ba ci baccalauréat yi ñu ngi am yaqin incha allah loolu kanam la ndax bàyyi moo ñaanul loolu képp ku fi jàngee yàlla na yàlla. Euh, barkeel li nga fi xam même bu benn xaraf te ñin ñi jaar foofu noonu ba du set dinañ gis euh, lu dëggal wax jooju noonu ñu ngi ñaan yàlla maqaama googu yàlla bu fa jóg yàlla fa yàlla saxal di lancer appel bi nga xamante ni moom la sëñ bi tëjee rek mu nekk euh, benn appel boo xamante ni ñu ngi koy jëmbalee ci ñëpp def ko comme genre campagne laa koy tuddee sensibiliser ñi nga xamante ni xëy na jël dañ am na ci groupe bu mu ci bokk xam naa incha allah dinañ jéem a tagg séquence bi dugal ko foofu ñi nga xamante ni bokkuñ ci groupe bi ñu fexe ñu jot ci ñoom it ñu tasaare ko ba euh, ñëpp kenn ku ci nekk liñ ci war a def xamal nga ko su bokk boo xoolee li nga xamante ni jëlee nga ko ci mahat bi ak njëriñ li mu la jural ci sa mustaqbal war ngaa mën a def retour bu jugee ci yow ñëw ci école bi même buy benn saaku ciment sax xeebuñ ko waaye tamit même buy un million it nawuñ ko ndax xam-xam moom laa yustara bi dirhamin waaye nag euh, ñu ngi suñu papa beneen yoon di am mbégte ak kontaan bu baax ci daje yi nga xamante ni may nañu ko. di ñaanal yàlla ki nga xamante ni mooy imam Cheikh Ahmed Tidiane Seydou Ali Cissé ñu ngi koy gërëm bu baax a baax moom it di ñaanal rakkam Cheikh Mouhamadou Mahi eh, Seydou Ali Cissé waaye mboolem doomu bàyyi fu munti nekk ñu ngi leen ñaanal ñoom ñëpp di ñaanal taalibe yi nga xamante ni ñu wàcc pour ñëw ci gàmm gi yàlla na ñëw ci jàmm dellu ci jàmm ak eh, mboolem jullit fu mun munti nekk rek yàlla na ko yàlla dafa jàmm di ziare ñëpp beneen yoon di wax rek eh, émission bi média de la fayda ñoo ko réalisé mu nekk raabitatu ilaami fayda bu soobee yàlla da ngeen ko seetaan ci youtube bi ak ci facebook bi ak ci yeneen euh, plateforme yi nga xamante ni mi ngi ci réseaux sociaux yi di jox ñëpp dig dajee beneen yoon asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Tu Gao Uras info l'info à temps réel Uras info jangat yu notre force le traitement de l'info